téléphone 77 394 73 73 agence Techno Habitat mooy caabi Tawfekh. mbokk yi ginnaaw ba ñu sant yàlla jullit ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëwaat tey rek ci niñ koy defee ci bokk di nafaraat ak bokk di fàttaliku tey nag niñ ko waxe woon ci ajjuma ji weesu ne suñ boroom bi mu bindee dañoo booleeg ñaar boole nañu ak suñ jëmm boole nañu suñu ruu te ni mu bëgg ñu dund dundale ko jëmm ji noonu la bëgg itam ñu dundale ko ruu gi mel ni nag ñun li ñu am ci suñu dund weesuwul waxtu ak am amam ñaar yi mooy ñi nga xam ne moom la doomu aadama am muy waxtoom ak am amam am am wax ji waxtu waaye waxoon nañu ne suñu borom xam na ne bëggul ñu yem yem ci rek ci yem rek ñu yem ci rek di ko dunde waaye nañ ciy dundale niñ ciy dundale nag mooy ñu dundal ci suñu groupe loolu moo tax bu ñu gisee waxtu yi nga xam ne moom la suñu borom wax ne nañ koy julli ci ci bis bi mu mel ni loolu dañuy xamal ne man ngaa dundee sa waxtu nag waaye deel dundal deel sa waxtu ni nga koy dundalee nag mooy nga dundal ci sa ruu sa nag xam ne ruu nañ xam nañ ne dara mënu koo dundal lu dul jëf ju baax rek moo koy dundal moo tax ñu xam ne kon ni nga xamee ne nag noonu la ko defee ci waxtu wi nga xam ne moom la doomu aadama am ni la ko defee itam ci li nga xam ne mooy am amam ba tax na ni nga bëggut sa am am nga di ko dundee képp waaye bëgg na itam nga ciy dundal nga ciy dundale ni nga ciy dundale nag mooy nga dundal ci sa ruu te dundal ci sa ruu mënut amee lu dul nga def ci lu baax rek loola mooy li nga xam ne moom lañ mën a jàngate ci li nga xam ne moom mooy farata yi nga xam ne suñ borom farataan na ko ci ñun xam ne dañoo bëgg a xamal ne rek dund du dund tekki wut da ngay dunde la nga am képp waaye da cee war a dundalee dundale googee nag mi ngi nekk ci ni ngay dundee sa jëm ni ngay dundale sa jëmm noonu nga war a dundale sa ruu loola nag moo tax ba mu am loo xam ne da ko farataal ci alal ci am am yi ñu am ñu war di ko génne loola nag ngir mën a dundal suñu guru ni ñuy dundale suñu jëmm mooy su am am boobee nañ ciy def lu baax loola nag bokk na ci li nga xam ne li moom la waral ci ñun muy asaka asaka nag xam nañ ne par at lañ koy génne te xam nañ ne niñ koy génne itam tuuti na lool ndax alal ja nga am buñ la waxee ne génne ci deux virgule cinq pour cent képp xam nañ ni kon lañ la ca sant nga jox ko ca bëriwul kon nag loolu moo tax ba asaka doon loo xam ne farata la joo xam ne dañ ko war a génne li tax ñu di ko war a génne nag mooy xam nañ ne suñ borom yamaliwut doomu aadama yi ci am-am yi waaye ñàkk yamale googay ñàkk yamale doomu aadama yi ci am yi ña am nañ xam ne seenum xel mayu leen ko nañ xam ne seenum pexe mayu leen ko waaye yàlla suñ borom rek moo leen ko baaxee kon nag comme suñ borom moo leen ko baaxee war nañuy fàttaliku ña nga xam ne. am na loo xam ne manqué nañ ci ñoom am na loo xam ne amuñ ko ñu war a génne nag li nga xam ne moom lañ am te te yàlla baaxe leen ko jox ko ñi nga xam ne loola manqué na ci ñoom loola mooy asaka te xam nañ ne liñ ci génne itam ni ñu ko waxee léegi tuuti na lool deux virgule cinq pour cent rek kooku ci alal joo man di am kooku xam nañ ne loolu doonut lu bari kon nag mu doon asaka nag mu doon loo xam ne yonent suñ borom ni nga xamee ne ni la xamee ne day alal sori na ci doomu xolub doomu aadama loolu sore na ci xolub doomu aadama lool ba tax na bi nga xamee ne mi ngi wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko na nga jël as na jël asaka ci seeni alal boole waale ci na nag na nga ca boo koy jëlee ba noppi itam na nga dalal seen xel mooy wa wasalli alayhim inna salaataka sakkanun lahum mooy nanga nga dalal seen xel xamal leen jël ko ci njëkk ak teraanga jël ko itam ci waxin ci an ci anam gu rafet ndax seen xel dal ci li nga xam ne moom lay joxe ndax alal dafa diis ci xorub doomu aadama kon loolu doon loo xam ne lu mat bàyyi xel la loolu nag tax na suñ boroom ji nga xam ne buñ gisee aay yi nga xam ne moom la dénkaane pour ñu jigi génn ci ñu war ñu war di génne asaka benn aaya yaa ngi nii boo xam ne bu mat a bàyyi xel la ci jullit mooy wal muminuuna wal muminaatu baaduhum awliyaau baadin mooy aaya la boo xam ne suñ boroom da ciy xamle ne jullit yi nga xam ne jullit dëgg lañ dañuy nangu kilifteef dañuy nangu kilifteef waaye ki nga xam ne du jullit wala ak njullitam wérut ñoom seen kenn ku ne dañuy pëccaxoo rek wéy wéy waaye jullit dafa war a nangu xam ne kii moo moo war a jiitu kee topp ca nii ñu doxe nii nga xam ni la war a doxe looloo tax mu ne wal muminuuna wal muminaatu baaduhum awliyaa baadin waaye waaye bayan aaya ba da wax ne wal wal munaafiqoon wal munaafiqaatu baaduhum min baadin képp na wax ne ñoom dañuy pëccaxoo ke amul kenn ku yilif kenn waaye bu dee jullit day war a nangu am ku ko yilif waaye nag ba mu nangoo ne am na ku ko yilif ba noppi itam day xam ne responsabilité bi nga xam ne moo war ka ko yilif ci lislaam nam ko war a jàppe noonu itam moom moom jullit bi noonu la ko war a jàppe xam ne ñoo ca yem ci responsabilité képp moo tax mu ne mu wax ne ya'muruuna bil ma'ruf wa waxut ne kilifa yi rek ñooy digle lu baax waaye dañuy yëg ne ñun ñëpp nii nga xam ne nu la suñ borom santaane lu ñu def lu baax ni mu ko sante kilifa gën ni la lañ ko sante ni mu ko teree def safaan noonu lañ ko teree ni mu bëggee ñu def lu baax itam ni la ko bëggee ñim ñëpp ñu ñu yëg yëg yëg boobu mu mel ni nag tax na loolu nga xam ne moom la ñu génne ci alal ngir dund ngir dundale ko te dundale googe mooy dundal ci suñu suñu suñu roo mooy def ci lu baax alal joojee bu fekkee ne yàlla jox na la ko ci ak mbaaxam nga yor ko te ci génne alal asaka ni nga xam ne ni la waree te asaka mu doon loo xam ne yomb la ni ñu ko waxee muy 2 pour cent képp te par at nga koy génne 2 virgule 5 pour cent képp la te par asaka par at nga koy génne ba loolu nag tax na soo ko deful suñ borom tëkku na ka ko ñàkk a def tëkku yu rëy rëy ndax da koy xamal ne ko alal jii nga yor di ko ŋaf-ŋafee ak ak bañ cee génn dara li nga xam ne moo la war ci warteef yi na nga xam ne bu ëllëgee mënoon nga cee bi nga fi nekkee mënoon nga cee dundule ndax suñ borom mi ngi wax ne man alladi yuxridullah xardan asanan delluwaat itam ñu xam ne sayidna Usmaan dundule moo taxoon yonente bi sa alayhi wa sallam waxoon ne kii yi day lislaam maanaam toppatuñ ko dara ndax di muy def lu baax ci alalam kon mu mel ni def lu baax ci alal lu am solo la lu mat a bàyyi xel la ba tax na nag ku ko defut ku ne ngir di ngaf ngafee la nga yor na nga xam ne bu ëllëgee suñ borom loole nga xam nga moom nga yoroon di ko ngaf ngafee dana ko tàngal mu doon ay soy mu di la ko ñaas di la xamal ne lii mooy li nga xam ne moo nga doon ngaf ngafee tey nag mooy li nga ciy jële mooy lii loolu doon kon mat bàyyi xel delluwaat wax suñ borom itam waxaat ne na ngeen xam ne li nga xam ne moom daa leen jox ci seenu ci sama mbaax ak sama xéewal ak sama jàppale bu leen jàpp ne loo bu leen ci nay ndax ñàkk nay ci kat na ngeen xam ne aw aw ay rek lay jurle lay lay leen di jural bu leen jàpp ne mukk dana jural dana leen jural aw yiw ndax bu ëllëgee danañ ko def mu mel ni loo xam ne ak ndomb la wala lu ko niru ñu ñu ñu ñu laxas ko ci sa baat te du tàggale tàggoogu yow te mbug lépp ànd ak mbugal mu tar lay doon kon mu doon loo xam ne kon lu mat a bàyyi xel la lu mat di xam ne àdduna si dañ nu fee indi ngir ñu dund waaye nag ngir dundule itam dundule googee nag mooy ba ca jiitu mooy ñu dundal suñu roo suñu roo nag li mën dara mën koo dundal lu def lu baax rek moo ko mën a dundal waaye doonu ne dañoo ñëw ngir dund rek képp lekk naan tëdd walla def nekk ci yoo xam ne ay xéewal la yoo la wër te ba wale woo ci nag dundal sa roo gi kooku loolu lislaam bëgg ko ndax nit ñuy dundale jëmm ni la suñu borom bëggee ñu dundale ko roo te xam nañ ne doomu aadama ñaar yooyu réclame muy waxtoom ak am amam waxtoom gis nañ ni ko ci suñ borom dimbale ngir mu mën koo dundal ngir mën ko mën ci mën koo dund ngir mu mën koo dundal ni ni gis nañ itam alal nii nga xam ne ni la suñ borom def ngir bëgg alal jooje mu ñu bañ ñu bañ a ci dunde ko rek waaye ñu ciy dund dundale kon nag mu doon asaka doon mi ngi noonu kon doon loo xam ne nag duñ wax ne at mi ah, tàmbali na rek kon kenn ku ne da ko war a génne asaka kenn ku ne sama at nga ci yor sam at nga ci yor jullit bépp jullit bu ne bu amee bu dee lam tiim moo ko moom doon koo xam ne itam ànd naa kum xelam te am loo xam ne lii asaka war na cee génn da ko war a génne ni nga xam ne la ko lislaam santaane ci alal yëpp yu yi nga xam ne yu wuute yi nga xam ne benn bu ci ne lislaam leeral na nan lañ ciy génnee asaka kon ñaan nañ suñu borom dimbalee bañ xam ne àdduna ñëwuñu fi rek ngir dund dund kese waaye dañoo war a dundal itam àdduna dañoo war a itam dundal suñu ruu xam ne ña ñaar moo nekk ci ñun doomu aadama yi muy suñu yaram ak suñu ruu ni ñuy dundale suñu ruu nag suñu suñu yaram nag léeg-léeg mu yóbbu nu ñu fàtte ne dañoo war a dundal ak ruu te ni ñuy dundale ruu yi noonu la suñu borom bëgg ñu bëgg dundale ko ni ñuy dundale jëmm ji ni la su noonu la suñu borom bëgg ñu dundale ko ruu gi yàlla nañ suñu borom dimbale nag bañ xam yoon wi nga xam ne moom la ñu war a jaar te di ca jaar nañ ca war a jaaree te buñ ko defee itam yàlla nañu suñu borom dimbale ba fay nu ca lu kawe suñ njort te fulal nu ko loolu suñ borom mën na ko jàpp na ko yàlla nañ ko defal rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلوا على نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم yéen ñii nekk fii ci Sénégal wala bitim réew te am fi kër wala villa wala immeuble